asalaamaaleykum mbokk déglukat yi euh, daal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur euh, tey comme ni ngeen ko déggee suñu invité mooy professeur Lamine Fall professeur Lamine Fall di pédopsychiatre ci kër xale yi nekk ci hôpital Fann fii ci Ndakaaru euh, jiite it association sénégalaise de psychopathologie infanto-juvénile donc suñu invité mu ñu nekk en liaison téléphonique ak moom tey professeur Lamine Fall maa ngi lay nuyu. Ah, maa euh, tey thème bu ñuy waxtaanee euh, mooy lépp lu laale ak psychologie de l' enfant dégg nga ko mooy xale yi nga xam ne xëy na seen yorin dafa métti xale yi nga xam ne dañuy jël ñu dul wax dëgg ñi agressif ak xëy na ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci concentration rawatina ci école balaa ñuy dugg ci waxtaan bi professeur dama lay bàyyi nga nuyu auditeurs yi gën leen présenter sa bopp ñu xam lan mooy pédopsychiatre ak aussi psychopathologie infanto juvénile ci lan lay yëngu. jërëjëf euh, Rosalie jërëjëf ñi ñuy déglu donc ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci déglu bi di yaakaar ni dinañu jéem a mën a tontu ci seen euh, ay questions ci seen laaj donc euh, lu ma mën a wax ci sama liggéey donc man benn psychiatre la donc psychiatre dafa nekk benn xam ci wàll paj paj médecine donc li mu fi mu fi mu gën a jege ñaari domaines yi mu gën a jege ñaari wàll yi mu gën a jege mooy pédiatrie ñi nga xam ne dañuy toppatoo xale yi ak psychiatrie ñi nga xam ne dañuy eh, toppatoo ñi nga xam ni que dañu am jafe ci seen xel wante li ko eh, wutalee ak eh, ñaar yëpp mooy ni que du ñu toppatoo rek ñi feebar c'est-à-dire sunu sunu liggéey dafa gën a jublu ci itam li nga xam ni mooy E, e, e, prévention maanaam fagaru donc ci ni ñuy pexe pour moytu jafe-jafe yi xale mën a am ci màggaay mi yépp ci xelam ak ci nekkin ci école bi ci kër ci société bi wara tax donc thème bi ñuy abordé tey mu nekk xale bi nan lay mën a am place boo xam ni que société bi dinañ ko nangu ni mu ba pare mu nekk li gën ci moom loolu la ñu mën a tuddee aussi développement Euh, sociale donc euh, euh, ak disons psychosociale donc ce qui fait que tey defe naa ni nañu mën a wax tamit ci lan la ñu mën a taxee xale yi nga xam ni que niñ leen di toppatoo nañu mën a mucc ci yenn jikko yi mais également suñ ko amee nañ leen mën a taxawu ci li gën a gaaw pour bañ a jéggi tey Euh, jërëjëf euh, professeur euh, Lamine fal ma bëggoon rek nga dellu si ci solo si am ci waxtaan ci mbirum xale yi parce que du du du saay su nekk la am occasion pour wax ci xale yi même si yépp émission mag ñi rek lañuy ñuy jéem a sóor tey jii lan mooy solo si ci li nga xam ne dañ koy consacrer ci xale yi ci seen éducation ci seen développement psychosocial plus particulièrement waaw ah, solo bi ci ëpp wax nga ko mooy mooy xale dañu leen di tamit mooy xale yi ñooy doon magi ëllëg maanaam ci olof dañuy wax ni que donc pour suñ bàyyee xale bi ba mu dëgër day gën a jafe donc bant bu bant bu tooy moo gën a neex a jubanti bant bu wow sinon sax suñ koy woowee day day mën ko donc moo tax xale yi suñ leen di bëgg a yar suñ leen bëgg a ci seen màggaay dafa bokk ci ñu xool ni ñuy màggee ci seen yaram en dafa bokk ñu xool itam ni ñuy màgg ci seen xel ak ci seen jikko donc parce que euh, li li yore ñoom ñoo yore ñoo ñu yore ëllëg ñoo yore def ci ëllëg ñoom ñooy aussi euh, euh, tax peut Sénégal ak Afrique mën a dem ci kanam ci ak yi ñuy ñëw ci kanam. Mhm. donc ce qui fait que pour le moment dañu négliger lu bëre xale yi mais surtout ci wàll ci seen jikko ci seen. li ñuy yëg ci seen yaram ak li ñuy xalaatee maanaam souvent dañu leen di méngale ak ay mag euh, wala dañu di xool ci bëtu comme su fekkoon ay mag lañu alors que am nañu ay am nañu ay ay façon yoo xam ni que noonu la ñuy gisee noonu la ñuy yëgee noonu la ñuy xalaatee noonu la ñuy jëfee euh, day laaj aussi euh, ñu topp topp topp ñu toppatoo ñu koy ñu jéem a xam ni ñu koy ni ñu koy dundee pour gën leen ci accompagner gën leen ci topp pour ñu mën a mën leen jëriñ Mhm. Euh, professeur Lamine Fall bëggoon naa balaa ñuy sob ci waxtaan bi euh, nga xamal ñu xamal auditeurs yi lan mooy xale kan la ñu war a mën a considérer ne moom xale la. waaw lan moom euh, ci sunu culture médicale déjà mooy ki nga xam ni que dafay dafay màgg maanaam ñu koy gis ci yaramam. Euh, mais aussi dafay euh, euh, war a di mën maanaam xale bu juddoo bu dooree nekk bu nekkee liir dañuy jàpp ni xamul dara mënul dara loolu dafa nekk loo xam ni que dafa gën a fës ci ci nit maanaam gën a jàpp ni dafa bokk ci ci wàll boobu animal ah animaux yu bëri yu bëri suñu juddoo maanaam ci ci waxtu yi ci topp dañuy demal seen bopp ah ci saa si mën nañu tal mën nañu lekkal seen bopp mën nañu defal seen bopp lu bëri wante nit euh, yàlla dafa def euh, euh, su juddoo maanaam su dem dina dina toog ay weer yoo xam ni que suñ ko kenn toppatoowul rek maanaam du du mën a defal boppam dara te kon dundam du du mën a nekk donc vulnérabilité maanaam oyof oyof bi am ci ci dundam su fekkee ni que amul kenn ku nekk ak dafa dafa tax loolu moo tax euh, nit dafa nekk li euh, ñuy wax animal social cest dafa soxlo di nekk ak keneen dafa jox euh, jokkoo ak ak ak keneen nekk ak keneen soxla bu koy toppatoo loolu moo tax xale ci xale la gën a fës donc dépendance xale dafa mënul defal boppam donc dañ koy dañ koy defal ma mais itam ci defal boobu du nekk état maanaam dañ koy dimbale mu mën a defal boppam ëllëg. Mhm. donc euh, xalaatal boppam defal boppam donc mais aussi euh, ci li may wax ci diggante boppam ak nit ñi mu fexe am ay ay euh, ay lu mu xam loo xam ne ko mën a respecté yoo xam ne mooy tax mu mën a nekk ak nit ñi dund dund bu normal donc ce qui fait su juddoo nekk xale bu ndaw ci lay gën a dépendant mais suy màgg su commencé mën a dox mën a wax mën a toog. dañ gis ne que day gën a mën a jëf ci ci environnement maanaam euh, su commencé dox dina mën a defar mais dina mën a yàq ah donc foofu lañ koy lañ koy euh, ci donc euh, après mu mën a dem jàng école maanaam fu xel mi gën a màgg parce que suy du du matagul du mot complètement donc c'est que au fur et à mesure muy mottali muy màgg muy mottali ñu jàpp xale ni que su juddoo noonu am na étape yu bëre nga xam ne mën na ko mën nañ ko koo jàppee maanaam euh, ñaari weer yu jëkk yi ci lay gën a soxla ñu toppatoo ñaari at yi di ci ci topp ci lay euh, aussi gën a mënal boppam ah ci lay commencé di gën a mën a euh, disons jëf ci environnement maanaam agir sur l'environnement c'est-à-dire mën a aussi découvrir c'est-à-dire xam lan moo ko wër te li nga xam ne loolu soxla directement mais su demee ba am ay ba am ñetti at jëm euh, fukki at foofu effectivement dafay gën a mën a euh, euh, am xam-xam am mën-mën donc aussi am nekkin su demee ba am ay juróom benn ak jëm juróom-ñaar foofu nag la ñu gis ni que ci yar gi ci lay gën a ci lay gën a feeñ ci lay commencé xam lu baax ak lu bon su fekkee ni que effectivement gindi nañ ko ci donc dina ko mën a dina ko mën a topp mu jëriñ ko jëriñ société donc li li ñuy wan boo gis daal moo nekk xare mooy ki nga xam ne day soxla ñu koy toppatoo ndaxte matagul ndaxte màggaayam def na boobu gis matul completement itam donc il faut ñu matali ko li ñuy jàpp nag mooy xale ñaar ñoo koy yor maanaam ñaar ñoo koy defar ñaar ñoo koy mën a loolu aussi daf naan am solo euh, ci ci waxtaan bi parce que souvent léegi li ñuy gis mooy euh, famille yi dañuy tasaaroo ah dañuy tasaaroo ñenn ñi dañuy bëgg jël seen doom def ko seen moomeel ñoom kese donc alors que wax nañ xale pour mu nekk ñaar la ñoo woy ndax mu nekk mais pour mu nekk itam mooy mu màgg mu mbokk from place ci société bi ñaar aussi ñoo koy toppatoo même su fekkee ni que nekkuñu sur place il faut que quand euh, xam nu ñuy euh, nu ñu koy toppatoo même ak distance donc yooyu xëy nañ ci ñëwaat ci kanam. Mhm. Euh, voilà en gros donc xale mooy ki nga xam ne soxla daal ñu mhm. toppatoo. Euh, très bien professeur Lamine Fall wax nga ko sànq nee nga xale motul donc dafa jara euh, toppatoo donc tey li ñuy waxtaanee moo di euh, xale yi nga xam ne mooy seen caractère dafa xaw a difficile wala xëy na nu ñuy dundee bés bu nekk neexul seen wayjur ñu mën ci lim xale yi nga xam ne dañuy jël mën nañ ko woowee sàcc dañuy jël lu ñu moomul xale yi nga xam ne du ñu wax dëgg comme par exemple fen tout le temps ñu wax dëgg xale yu agressif di def yëfu soxor loo xam ne mën na gaañ keneen buñ demee ba ci biir aussi dinañ ibbi parenthèse waxtaanee euh, jafe-jafe concentration ci yenn xale yi nga xam ne dañuy dem classe euh, ba ñi leen di jàngal sax léeg-léeg dañuy woo seeni ay waajur ne leen kii daal day absenté wu euh, ci ñett yi ma njëkkal yi mooy xale buy jël xale buy buy bu dul wax dëgg ak xale bu agressif est Euh, am na loo xam ne mën na ko expliquer mën nañu am benn explication rationnelle bu tax yenn xale yi di am yenn comportement yooyu. waaw xam nga ci ci màggaayu xale ko waxee léegi rek dafa am ay wàll yoo xam ne dañ koy gis xam ne dañ koy gis ci yaramam par exemple euh, ñu xam ne nañ ko natt sax ci ay wàll rajo ay biologie ay def ay xool ci deretam ak yeneen euh, loolu. Euh, dafa nekk benn wàll mais am na leneen loo xam ni que euh, loolu mooy li nga xam ne moom loolu la ci loolu lay dunde loolu lay yëg maanaam ñun ku ci nekk su fekkee mbir ni koy nettale bu yem loolu mooy wane ni que ni koy dundee itam du yem xale bu nekk itam ak xelam fu ak ni mu màggee ak màggaayam mu toll ak li mu tàmm dund ak li mu li ko bett dundee mbir du yem moo yar gi dañ ci war a fàttaliku loolu ni xale bi euh, liñ ko liñ koy dunduloo il faut ñu jéem a xool nan la ko dundee donc ce qui fait effectivement su fekkee ni que euh, euh, muy commencé di wax waxul dëgg muy jël lu mu moomul wala muy muy muy yàq wala muy gaañ donc mën nañu xool également lan moo tax mu ñëw donc li tax mu ñëw euh, mën na jóge ci ñoo ñu wax biologique donc nga xam ni que mooy li nga xam ne dafa nekk sax loo xam ne que daf ko ko indaale noonu la noonu la bindoo mais am na loo xam ne itam euh, euh, daf koo daf ko jàng maanaam daf ko expérimenté maanaam ah, daf ko dund mu nekk loo xam ne que euh, dafa nekk gisinam loo xam ne que pour moom mën na ko def ah, su fekkee ko ci effectivement mën na sànq mën na sànq itam ñu ko wër donc dafa nekk loo xam ne su ñuy xool suñu jógee kon dafay jàpp ci lu bëre du nekk benn mbir kese hmm, parce que yenn saa yi dañu gis ne yu bëre su seen doom jafe dañuy dañuy culpabiliser wu dañu naan lan laa def wala lan laa def wante mënul nekk parent bi kefe ah dafay nekk aussi yenn saa ci xale bi nekk ci ñi ko wër donc dafay suñu xool facteurs yi lu ñuy wax cause dañuy wax facteurs yi nga xam ne mooy indi lépp li nga xam ne mën na mën na mën na bokk ci luy indi jafe-jafe yooyu day day jàpp ci loolu yëpp hmm. donc la ñu mën a wax biopsychosocial maanaam lépp li nga xam ne dafa jàpp ci dundal ak xam dafa jàpp ci xale bi ñu koy dundee ak li nga xam ne dafa jàpp nga xam ne loolu lañ koy loolu lañ ko koy dundalee maanaam environnement am noonu la noonu lay jokkoo waaw ci kanam tuuti dinañu ñëw ci facteur yooyu professeur Lamine faal dañuy ubbeekum antenne bi euh, su ko defee auditeurs yi nga xam ne am nañu ay laaj yoo xam ne dafa soxal suñu thème bi ñuy waxtaanee tey ñu mën a jokkoo ak yow bu am bu ñu amee contribution aussi ñu mën ko def ci 33 825 18 30 may fàttali ne professeur Lamine Fall pédopsychiatre la lu ñuy waxtaanee mooy xale yi am caractère yu euh, xaw a difficile yi ñu jël suñu premier auditeur professeur Fall asalaamaaleykum. Eh, maa ngi lay ziar. Rosalie. Touré. maa ngi lay ziar bu baax El Hadj Touré. maa ngi lay fay. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Kër Fassod. Mm-hmm. di kontaan lool ci émission bi. jërëjëf. yan yàlla na yàlla may jàmm. amiin amiin. maa ngi ko jëlee ko ci ci Sud yëpp. Mm-hmm. ndax mën nga yëkkati kàddu gi tuuti euh, Touré. ah waaw waaw incha allahu rabi damaa damaa damaa réeragul nag quoi. da nga may jégal man kay xam naa loolu bon maa ngi nuyu di nuyu professeur. Mhm. di nuyu auditeurs Sud FM yëpp. maa ngi nuyu suñu ñett ustaas yooyu. Mhm. di nuyu directeur Baye Umar Gueye. di ziar bu baax tontu li ak Cheikh Ahmad Tidiane Ndour bon man su kii mooy euh, bu ñuy bu muy kii sax bu muy commencé bu may doog commencé xam nga dafa xaw yéex tuuti rek. mooy mhm. doog commencé dafa dama doon jàpp ci biti. waaye eh, lu ma ci gën a jàpp mooy euh, xale xale yi léegi fu mu nekk nii amatuñ éducation de base comme nañ ko mën comprendre amatuñ éducation de base léegi fu mu nekk ni ci mbedd mi rek la ñuy yaru léegi fu mu nekk ni xale boo gis mu ci mbedd mi léegi fu mu nekk ni am na ñoo xam ne daal bon responsabilité yu responsabilité c'est partagé quoi bon soit euh, waajur yi ak ñi nga xam ni tamit encore ak euh, ñi nga xam ne dañuy yàq xale yi parce que léegi fu fa nekk ni mbedd bi boo génnee ci mbedd mi rek ñuy yàqu kese ñoo nekk ci mbedd bi amul kenn ku fa baax ci mbedd bi parce que boo boo su la neexee nga wax ko léegi nag fu ma nekk ni xale day yomb mooy jël xale day yomb doo boo wax ak moom du la déglu léegi nag man lu ma doon laaj professeur mooy xale bu nga xam ne da ngay wax ak moom mu mel ni ku absent boo da wax da wax su pare après nga laaj ko nga naan ko yow defal li après mo ñëw laajaat la ko ma naan ko yow loo ma wax léegi lan ma koy waral mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa Euh, jërëjëf ci laaj bi am na solo professeur Fall dina ci euh, tontu ci kanam dañuy jëlaat euh, beneen auditeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Mm, ñu ngi lay ziar bu baax. soxna Rosalie maa ngi dellu di leen nuyu. ñu ngi lay fay. di leen sant di di nuyu sa docteur boobu. Mm-hmm. Fane ak Sud FM l'ordre national des médecins ak Val d'Afrique. Mm-hmm. nit ñi nit ñi nañ leen wax ne auditeurs yi nañu jënd pass Sivalda. <laughs> baax na ci corona de baax na ci corona ku koy na ku koy ku koy màcc chaque jour. Mhm. corona bi du la du la jëm tamit nga respecté geste barrière dañ boole si. Mhm. waaw tellu tamit di waaw di gërëm docteur. waaw di ko wax ni euh, comme nu euh, comme nu ko El Hadj waxee maa ngi koy nuyu euh, yëpp si éducation éducation base bokk na si peut-être tamit sa biologique. mais éducation de base bokk na parce que ñu bari mënu ñu éduquer wala bokk ñun ñu ñu yaree yarewuñu ko suñu doom parce que ñun dañu yar yar yar bu yar bu dëgër yar bu kii mais ñun léegi dafa mel ni dañ yërëm suñu doom wala dañu ragal dañ leen yërëm wala dañ leen ragal parce que parce que daal nu ñu yaree. Mm-hmm. mais man mi wax yow sax nu ñu ma yaree yarewuma ko sama doom yi. li ma yar su ma ko bëggee defar sama doom yi sama dëkkandoo yeeg sama soxna yeeg da ñaan ma da nga rek da nga lii. Mhm, mooy lan mooy ah. lan par exemple ban différence nga nga gis. ci yarin bi non non yarin kii euh, bu njëkk bu jëkk sama doom doom ñëpp la. képp si kër gi képp si kër gi ak si mbedd mi kii boo gisee xale buy def naka su dul noonu mën ko ko corrigé ba pare jàpp si loxo bi indi ko si kër gi ay waajuram dolli ko. mais léegi léegi am na kër yoo xam ne sa petit frère bu dóoree sa doom sax sax sa jabar ne ko bu ko sol xolaalati waroo ko yar balaa nga yar balaa nga yar nga yaru ba pare bon su fekkee ni si condition yooyu la xale bi tamit dafay dem ba gis boppam waaw man daal lu may te am na lu may laaj docteur tamit. Mm-hmm. Euh, comme ku am si kër benn xale boo xam ne il est super intelligent. waaw dafa teel a yow si àdduna.

ñu ngi delloo ziar. di kontaan trop si liggéey bi. jërëjëf. leen encouragé. Mhm. leen jaajëfal tamit. merci beaucoup. leen dox nuyoo Cheikh Diallo maa ngi tudd Ablaye. Mhm. di woote Pikine ngi lay nuyu. waaw léegi nag li ma bëggoon laaj docteur mooy. Mhm. xale boo xamante ne bii macha allah am na intelligence euh, mën na capter day jàng day jàpp day léegi xale boobu la nga ko mën a dimbalee. ba nga xamante ni loolu du ko perte. Mhm, ak yooyu mu am du ko perte daal. non non maanaam intelligence bi mu am. bu du du ko ñàkk. waaw day foo day kaf day ree xale bu em bu bëgg partager daal. Mhm. nga xam ne day bëgg daal soo toogee moom muy waxtaan di la laaj. soo deful dara sax moom mu lay jéem a daraay di a yëngal. maanaam xale bu yeewu. léegi kooku nag léegi loolu mu am noonu. Mhm. pour pour nga bañ koo perte mu mu màggaaleeg moom. foofu bëggoon naa docteur indi leeral quoi. incha allah merci Rosalie. jërëjëf Ablaye. jërëjëf professeur bu ngi dégg euh, question yi donc euh, dañuy jëlaat euh, yeneen ñaar wala ñett laaj yoo xam ne ba tey ci 33 825 18 30 mu ngi laale ak suñu thème asalaamaaleykum. mu ngi laale ak suñu thème asalaamaaleykum. maaleykum. maaleykum salaam. allo. allo. waaw. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi sant. a ah, euh, ñu ngi lay déglu est-ce que mën nga wàññi sa rajo tuuti. waaw waaw fay naa ko sax. waaw kay ñu ngi lay déglu. noo tudd wala fooy woote. maa ngi woote Gandiaye. Mhm. Euh, thème bi aw na doon trop. Mhm. mais yar bi ngeen di wax. mënatul ne. yar bi mënatul ne quoi. Mm, lu tax. loo koy bàyyi xam nga tax. Mhm. bu njëkk borom kër yi <clears throat> borom kër yi ñoo doon yar. mais léegi jigéen ñi yar. suñu papa ñoo doon yar suñu doom yi ñun ñu papa ñoo doon yar léegi ñun suñu jabar ñoo yar suñu doom yi. Mhm. lu waral loolu. lu waral loolu bañ ji bañ wàccee ñetti droit ci Sénégal la yar jeex droit de l'homme droit de l'enfant. Mhm. Euh, droit de la femme ñetti droit yi ñoo yàq xale yi yëpp. Mhm. bañu bañu ootee droit yi la la la yar yàqu. boo dóoree sa doom sa yaayam bu neexu bu ko mu pot la ñu jàpp la lii moo tax yar jeex ngeen baal jërëjëf euh, ci contribution bi euh, professeur dina ci indi euh, xalaatam ba tey ñu jël beneen auditeur ci 33 825 18 30 may fàttali thème bi tey mooy lu laale ci psychologie de l'enfant ñu jël particulièrement ñetti mbir yoo xam ne dañu koy nemmeeku ci yenn xale yi moo di di jël loo moomul ñu mën ko woye càcc wala di doo wax dëgg wala xale yi nga xam ne dañuy agressif saay su nekk dañuy def lu métti wala di di yàq loolu yëpp mu nekk loo xam ne dafa laaj prise en charge wala prévention parent yi soxla ci ndimbal pour mën a yar seen doom donc euh, professeur Lamine Fall dañuy yemaleegum fii appel yi ma mën na bàyyi nga tontu auditeurs yi nga xam ne woote nañu ñu commencé ak euh, Lamine Touré nee xale yi ci bëri yi nga xam ne dañu nekk ci situation boobu jël yomb leen wax lu dul dëgg yomb leen euh, dañu amul éducation de base maanaam lépp lu ñu jàng ci mbedd bi lañ koy jëlee te responsabilité bi c'est partager mais buggoon naa aussi euh, professeur comme yéen nekk ci domaine wu xale éducation de base dañ koy dégg mais naka lañ ko mën a tekkee lan mooy éducation de base. jërëjëf euh, donc. Euh, defe naa ni am na solo trop euh, li monsieur Touré wax ci éducation de base éducation de base mën nañ jàpp ni que mooy xëy na euh, li nga xam ni que lool la xale bi di déparé maanaam base bi. Mhm. fondement bi parce que yar mën nañ war nañ jàpp ni yar du jeex maanaam éducation euh, du jeex maanaam su fekkee ni que waajur yi ñoo yore ñoo yore yar gi. xale bi su lu muy su tuute maanaam yaa ndey ji sax moo koy yoree su dekkee liir ndaxte moom moo koy yore fu ne su gën a màgg papa ji dugg te suy gën a màgg société bi dugg. Mhm. ak ak ak société mun ti doon maanaam li su demee ba ba ba tële sax justice mooy dugg maanaam euh, euh, xëy na kaso lañ koy yaree wala wala feneen donc am na su fekkee yenn dëkk yi dañuy am ñuy wax ay service éducation wala service yi nga xam ni que dañuy tëj sax euh, xale yi pour ah pour méttital leen pour yar leen pour ñu bi. commencement bi pour pour pour pour maanaam pour bon éducation de base. Mhm. mooy fi ñuy déparé maanaam maanaam li ñuy jox xale bi ci ci commencement bi ci ci ci ci départ bi. donc responsabilité partagée bon euh, li may bañ a dégg foofu mooy irresponsabilité partagée parce su amee. Mhm. normalement problème du am. mais nag ñu bëgg a jàpp ni kenn responsable maanaam irresponsabilité partagée. loolu mooy jafe-jafe maanaam xale yi suñu bëggee ku nekk ni sama yoon newu ci foofu problème day am loolu ñëpp ngi ci. Mhm. Ah, donc euh, dafa naa ni parents yi ci lañu bokk mais parents yi itam dañ leen di yar maanaam parents yi dañ leen di dimbale yar du du du du jafe du jafeel euh, dundu xale bi yar mooy yombal dundu xale bi yar mooy fekk xale bi ci li mu soxla ñu jox ko ko li nga xam ne moo koy jëriñ. ante yar bu mettital rek yar du mettital sax jotu jotu dara yar du fitnaal donc yooyu yëpp il ñu ñu jëm koo jëm koo si euh, distingue maanaam yu bëre yi ñuy wax yar yenn saa yi du dimbale xale bi ci niñ koy jëfee maanaam intention bi yenn saa yi baax na mhm. ante ci niñ koy appliquer euh, dafay am problème mooy li ma wax sànq rek xale bi il faut ñu xool ni ñuy dundee nuñ koy yaree maanaam jëfin Euh, comportement bi ñuy jël wala manière bi ñuy jël pour pour yar ko dañuy xool ndax jig na ko wala jigu ko ndaxte euh, fuleur sax wala plante sax soo koy soo koy toppatoo am na noo ko di nga xool ndax di nga koy toppatoo doy jëriñ na wala jëriñ ndax ndox bi ëpp na wala manqué na wala leneen. Mhm. donc xale noonu la li soxla lañ koy jox. pour anticiper sax ci droit yi ñuy wax maanaam droit de l' enfant bi ñuy wax droit droit yi dafay dafay basé wu ci xale lu mu soxla. droit de l'enfant du rek dañuy jël xale bi teg ko ci kaw mag ñi déedéet dañuy xool xale bi lan la soxla ba pare ñu ni mag yi kii nga xam ne mooy mag muy waajur bi wala keneen fam responsabilité fam fam responsabilité fam ay devoir maanaam droit dafay ànd ak devoir maanaam li nga li nga li nga li nga moom dafay ànd ak li la war maanaam soo defee li la war nga am li nga moom maanaam mhm. parent dafa am ay ay droit ci xaleem ci doomam am ay devoir ci moom comme xale bi aussi am ay devoir ci parent bi am ay droit ci parent bi maanaam parent bi war na ko jox li mu soxla donc am na yoo xam ni que dañu naan parent bi war na ko def pour xale bi jëriñ ëllëg loolu mooy droit am wante xale bi tam am na loo xam ne foofu xam ne war na fa yem droit parent bi la ah donc euh, euh, c'est c'est extrêmement important que ñu bañ a euh, fi xool aspect yi négatif c'est-à-dire que ci ci ci ci ci limite yooyu maanaam ay limite la yoo xam ni que duñ jox duñ jox doole jiw wàññi doole jiw dañuy fexe ku nekk nga nga jëriñu ci ci yoon bi ñu teg donc loolu mooy droit ci yoon mhm. hmm? donc euh, am na question bu monsieur Touré posé départ mhm. ci xale yi nga xam ne dañuy dañuy mel ni comme nekkul si maanaam dañuy distrait mhm. wala dañuy mel ni ku absent ah, dañuy dañuy dañuy étourdi sax yenn saa donc euh, loolu dafa nekk lu am solo itam ci ci ci thème bi ñu jublu tey maanaam xale yi nga xam ne dañuy def parce que loolu maanaam dañuy dañuy dañuy jalgati yoon ah, dañuy jalgati yoonu yoonu état rek mais même yoonu kër gi yoonu école bi en li ñu teg ñi nga xam ne ñu ni mooy yoon xale yi nga xam ne dañuy faral jalgati loolu dañuy seetlu ñu ci bëre eh, jafe-jafe bi muy souligné moom daf ci ànd ah, daf ci ànd leen sax day day nekk loo xam ne suñ ko seetee dafa teel nekk ci ñoom maanaam ba mu nekkee as tuut ba mu amee ay juróom-benn ak juróom-ñaari at yenn saa yi dafa nekk ku lëj wala mu nekk koo xam ni que dafa dafay dafay distrait dafay étourdi donc euh, dafay dafay souvent du fi nekk. Hmm? donc yooyu euh, comme ni ma ko waxee sànq dafa am ay aspect biologique am ay aspect ay aspect environnement psycho environnementaux cest à ay xale bi am na lu muy ñëwee ndax am na xale xam dañuy ñëw dal tey noppi yenn saa yi sax euh, duñu jooy. Mm-hmm. di liir am na xale dañuy ñëw donc loolu moo lay wan ne que euh, at yi bi mu juddoo xamagul lu xam kon loolu jotuwul dara ak euh, li muy dund ni mu ñëwee la wante nag ni ñu koy toppatoo ni ñuy tontoo ni ñuy ni ñuy ni ñuy def ak ak ak loolu ak melokaan boobu mu indi loolu day tax euh, melokaan bi gën a tar wala mu mu tane donc foofu ce qui veut dire que ñaar duñ leen opposé dañoo ànd maanaam mbiru mbiru li nga xam ne daf ko indaale mu nekk ci ay cëram ak li nga xam ni que noonu lay dundee ñoo ànd maanaam euh, euh, euh, mën na mën na mën na nekk jafe-jafe départ ba pare tey mu tane comme mën na nekk lu yomb sax départ ba après jafe-jafe yokk ci. Mhm. donc li ñu war a jàpp suuf rek mooy xale yi nga xam ni que dañoo lëcc jël sañ leen wax ci ci ci ci français hyperactif wala ADHD trouble déficit attention hyperactivité yooyu am na ay signes yoo xam ne su ci àndee. dafay dafay nekk loo xam ne dañ ko war a topp foog bu baax parce que risque la en fait signe la boo xam ne que mën na wan ne xale bi am na risque ëllëg mu mu nekk jalgatikat mu wàcc yoon et puis mu yàqal ko àddina mhm. donc euh, su notamment su amee su amee opposition maanaam su fekkee ni que dafay dafay bañ day bañ autorité day bañ. day fippu nekk koo xam ne voilà day fippu foofu euh, su ànd rek euh, loolu surtout war na war nañ ci ay xel bu baax. toppatoo ko ndaxte eh, li nga xam ni que moo tax du yomb day nekk loo xam ni aussi dafa jàpp ci li mu moo tax du yomb loolu moo tax ma ni encore eh, parent bu nekk ak sa wërsëg yenn nga am lu jafe maanaam eh, éducation bi war a def ci effort éducation bi gën a benn xale ba pare yenn saa yi mu gën yomb ci beneen xale donc loolu moo tax du yomb dans tous les cas du yomb trop dans tous les cas donc chance la rek yenn saa yi parce que yow sa yaru xale yomb pour keneen bu mhm. jafe Mhm. Euh, ñu ñëw ci question bu Thiam bu Malicounda moom nee na ñu bëri xamuñu nu ñuy yare xale te nee na léeg-léeg ñi dañu yërëm xale yi wala ragal leen souvent dañuy dégg loolu aussi ci suñu société ne diw dafa ragal doomam doom euh, doomam da ko napp euh, dafa yërëm doomam professeur loolu yëpp naka ngeen koy analyser est-ce que ci jamono ji ñu toll waajur war na mën a ragal doomam est-ce que sax waajur mën na toll foo xam ne dafay ragal doomam donte ñit ñi dañ koy wax ndax Thiam nee na éducation yu bokkul ndax moom niñ ko yaree tey jii mënu ko yaree doomam donc est-ce que changement am na lu tax nan nañ koy expliquer ah question boobu li muy wane rek mooy ni encore du du xale bi rek maanaam ci diggante xale bi ak ñi ko wër maanaam relation la question de relation la contre question interaction la interrelation c'est-à-dire que ci li nekk seen diggante loolu mooy yenn saa yi xool mais li nekk ci diggante wayjur ak doomam yenn saa yi dafay dafay jóge ci li ñu dund ci ci ci ci wayjur bi moom ci boppam li mu dund ba mu nekkee xale li mu gis ci ci ñi ko wër ci mu li mu xam li mu expérimenté donc loolu ku ñun ku ci nekk ci ñun loolu ngay loolu ngay nekkee parent maanaam am na loo xam ni euh, xalaat nga ni ko soo amee doom na ko koy def daal lañ la yaree noonu nga dundee noonu am na yoo xam ne dëgg naa lii moom mooy def sama doom nii laa bëgg a ku ci nekk am na ay valeur yooyu indaale am na ay compétences yooyu indaale am nga aussi ay limites am na ñoo xam ne par dañ naan sama doom du ko mës a dóor am ñoo xam ne sama doom duma ko may du ko may dara c'est-à-dire euh, du ko bàyyi du ma nangu muy muy muy jalgati même lu ndaw maanaam euh, foofu aussi il ma rappeler yenn yenn façon yar yi metti mën na indi li li ñuy li ñuy maanaam euh, ci éducation bi tax éducation nekk métier bi gën a jafe ndax métier parent la éducation dafa nekk benn métier boo xam ne que ak loo mën a am métier ci sa métier la bokk soo nekkee soo nekkee wéyjur. soo xasee ba ju ba nar a jur doom am njaboot forcé da ngay da ngay am métier boo xam ne moom la ñu tuddee éducateur nga ko nga bañ koo jàng nag dafa nekk métier boo xam ne même soo ko jàngee day jafe waxuma laak soo ko jàngul te ñun sax dañ ko jàng ndaxte yar nañu normalement yar nañu ñii mbaa nee donc loolu moo tax euh, dafay am solo euh, trop. que euh, euh, ñu nangu ñun en tant que euh, parent en tant que éducateur suñuy limite maanaam doon rek man sama doom maa koy maa koy modelé maa koy defar ni ma bëggee ni ma ko bëggee déedéet xale bi dafa war a mën a mën a màgg ba pare nekk koo xam ni que dafay dafay dafay dafay dal ci li mu nekk ba pare mu gëm ko maanaam kon dañ koy may dañ koy may su noyyi pour mu mën a mën a gis lan moo gën ci moom. Mhm. mu respecté li gën ci ñeneen ñi. loolu nag euh, yenn saa yi mën na mën na jafe ndax su fekkee ni que euh, da ngay ragal buntu xatal euh, xale bi trop mën nga ko yërëm wala yenn saa yi sax lu ñuy wax ragal peut-être yërëm la parce que bugguloo yenn saa aussi li ñuy seetlu tey li gën a bëre mooy aussi yenn dañuy bañ ñu ne li ñuy wax. da nga gis parents yoo xam ni ñu gën a jafe ci seen yar seen doom mooy ñi ñuy dëkkal. liñ ciy duggee niñ ciy duggee wax am na ku ko wax léegi naan dañ naan la balaa ngay yara yaraate nga yaru bu pare mhm. yooyu dañ koy gis ci biir kër sax jaru ngay génn ci biir génn ci biti ci biir kër gi sax da nga gis maam ji wala bàjjan bi wala tant bi wala mag ji eh, ni ko e bàyyil xale bi yaa ko gënoon yàq da nga nekkee xale wala leneen leneen donc euh, euh, xale li ñu soxla mooy mag yi leen wër am cohérence maanaam li ñu leen di wax nekk benn benn benn benn benn benn wax c'est-à-dire mu leer c'est-à-dire bi nekk valeur bu leer bu cohérent mais su fekkee ne kii day wax fii kii wax fee xale bi du xam fu mu fu mu jëm parce que xale yi yëpp suñ leen jàppee eh, loolu ji normal yi nga xam ne dañuy màgg normalement te xale yëpp normalement dañuy màgg su fekkee ni que amul leneen lu ci am gàllankoor li ñuy bëgg mooy eh, neex ñi leen jege maanaam ñi leen di toppatoo xale bu nekk bëgg na ki pap wéyjuram papaam wala yaayam wala nijaayam wala ki nga xam ne moom la dëkkal bëgg na xelam dal ci moom bëgg na am lu ko neex bëgg na muy wax bu koy wax lu ko neex su ci su ci su ci ex su ko deful su ci su ci échoué daf koy metti moom ci boppam. donc moo tax dafay am solo trop kon suñuy yar xale yi ñu xam ni que du lu yomb ci xale bi du yomb ci ñun te yenn saa yi su mettee trop mën nañu wuti wuti ndimbal. Mhm. wante itam su nit di yar doomam ñu bañ ci dugg di ko di ko wàññi. Euh, parce que euh, boobu du moom la ñuy wàññi xale bi la ñuy wàññi. Mhm. professeur est-ce que di nga wax sànq saa veut dire que reproche bu bari euh, baaxul ci xale. pas seulement reproche bu bëri c'est-à-dire yenn yenn yenn excès excès de de de de dire xale bi soo ko yéene lu mu atami. Mhm. su ma nee su ma nee. c'est-à-dire nga laaj ko loo xam ne mënu ko. Mhm. la nga teg ko loo xam ne attanu ko loolu mën na indi musiba. maanaam si loolu liñ ko mën a gën a jàppee ci psychologie bi mooy xale bi day gis ni que euh, ñu mag ñi am doole ñi nga xam ne ñooñu mag dañuy dañuy dañuy dañuy abusé maanaam dañuy euh, te amul loi du plus fort la quoi. Mhm. maanaam euh, su ma amee doole su ma jekkoo rek mën naa mën naa noot ki nga xam ni que maa ko jekk. Mhm. donc xale bi su su su dundee loolu. ba pare mën na ko dundal nit ñi parce que loolu la jàng ci digganteem ak nit ñi. ah donc parce que li ñuy war a jàpp aussi mooy xale bi su nekkee suy màgg day jàng nekkinam ak ak nit ñi donc li muy jëkk jàng ci nekkinam ak nit ñi su dalul xelam effectivement dafay jaxasoo nekkinam ak ñeneen du dal xelam ndaxte loolu la ñuy wax sécurité de base. Mhm. te mu ngi ci éducation de base ci biir la bokk. éducation de base bu jaar yoon dafa war a xale bi am sécurité de base c'est-à-dire xale bi am confiance ci boppam am confiance ci ni mu ni mu nekkal. donc mais su fekkee nit effectivement jàllul xel xelam du daal donc te euh, digganteem ak nit ñi itam euh, ci am conscience xelam du daal donc day day day nekk souvent sur la défensive donc dañ ko gis aussi ci yenn xale yi nga xam ne que ñoo def yenn défini ni ñuy interpréter ni ñuy interpréter ni ñuy gisee ni ngi leen di ni ngi leen di waxee ak ñoom wala ni leen saay dafay dafay dafay faussé maanaam da ngay wax ak moom mu defe da nga ko jàmmi wala mu nga xam ne mu defee dañ ko bëgg a méccital léegi mu def mu réagir en excès également parce que dafa dafa dafa interpréter faussement réaction sa action léegi foofu aussi mu indi ay jafe-jafe donc ce qui fait que très important ñu xam ni que ñun itam euh, euh, ci ci suñu yar xale bi en fait am na suñu amal njëriñ aussi ñu pour ñu gën a mën a xam suñu bopp ah, maanaam yenn saa yi xale bi dinañu wal suñuy suñuy limite ñu war ci euh, góor góorlu pour gën ko mën a dimbale maanaam il faut ñu suñu bopp suñu xel dal ñu gën a euh, ñu gën a bien ñu gën a confortable pour mën a jox xale bi confort mais su fekkee ne que da ngay sa rôle parent ñu lay ñu lay déstabiliser si sa biir kër wala ci sa wala ci sa koñ euh, effectivement day jafe nga nga indi confort pour xale bi moo tax problème yi ñuy posé tey sur le plan social ak conflit yi am ci voisin yeeg ci biir kër gi yëpp nga xam ne dañuy déstabiliser parent bi je disais rôle parent am déjà mais aussi rôle éducateur am pour dimbale euh, de de la femme suñ ko gisee ci duñ ci nekk am am confort mhm. forcément kon suñ koy appliquer duñ duñ ko bu large donc de de la femme nit koy joxee ci sunu culture est-ce que comprendre nañ ko bu baax est-ce que critiquer nañ ko bu baax est-ce que adapté nañ ko au fond de wala dañ koy dañ koy dañ koy appliquer de de façon euh, forcée c'est-à-dire de façon inconfortable foofu effectivement beneen question la boo xam ne que man aw ma solution aw ma réponse am mhm. donc c'est extrêmement important kon euh, ñu xoolaat lan moo nekk suñu diggante ak suñu doom mais aussi lan moo nekkoon suñu diggante ak suñuy wéyjur wala ak suñuy ñi xam ne que ñoom ñu doon dundal ba ñu nekkee xale mhm. parce que loolu daf ñuy influencer forcément ci suñu diggante ak suñu ay doom wala suñuy nawle tey. Euh, tout à fait euh, beneen rajo euh, Thiam nee na xale boo xam ne dafa super intelligent maanaam xale boo xam ne macha allah am na ay faculté yeewu na ci mbir yu bëri naka la ñuy def ba canaliser ko de sorte que yeewu boobu mu am du ko xiir ci lu bon. waaw donc damay dégg ci ci ci ci ci question boobu ñaari élément muy intelligence ak ak affection maanaam xel. xol ci ñun sunu sunu domaine dañ koy distingue dañ koy distingue maanaam li ngay yëg ci sa yaram ak li ngay xalaat ci sa xel dafay nekk ñaar xale bi mën na am xel di xalaat bu baax xel bu ñaw wante ci xolam xol bi xol bi neexul wala xel bi dalul maanaam boo xol bi <laughs> en fait seddul ah, donc foofu effectivement euh, mën na utiliser intelligence am pour def ci lu lu lu baaxul parce que moom ci boppam euh, xolam neexul maanaam euh, il n'est pas bien donc su fekkee ne que moom ci boppam dafa dafa dafa dafa amul euh, confort lu mën a joxe confort aussi ci ñu ko wër c'est-à-dire day réagir aussi de façon très inconfortable donc ce qui xale bi nga xam ne dafa am intelligence avantage bi ñu ci am parce que il faut ñu xam ne aussi xale yu bëri nga xam ne ñu def ay transgression yenn saa yi seen seen xel dafa neexul am na ci aussi am na boobu tamit beneen facteur la biologique sax mën naa wax maanaam yenn xale yi li tax ñuy fenn li tax ñuy jalgati eh, yenn yi dañoo xamul c'est-à-dire règle bi pour ñu comprendre ko dafa jafe ci ñoom. Mhm. donc xale bi nga xam dafa ko li nga xam ni que loolu la ñuy xaar ci moom ci société bi te loolu du yow yaa koy xaar ndax te sa bëgg-bëgg la wante lu mooy loolu moo wax ne mooy li gën ci ñëpp ndaxte aussi il faut ñu xam ni que xale eh, dafa yëg. ni que moom amul doole amul pouvoir euh, yenn niveau yenn niveau yi te di fekk adulte bi nga xam ne moom mooy autorité ci moom mën na ko dund comme koo xam ni que yenn saa dafay def lu ko neex wala lu ko dafay laaj lu ko neex donc important ñu leeral ko xale bi ni ko li ñu koy laaj li ñu bëgg mu def du parce que daf ñu neex te yenn saa yi malheureusement sax am na parents yu koy wax yoo xam ne dañuy essayer ay euh, chantage seen doom naan ko soo deful lii doo am lii et cetera comme ni xale bi dafa leen war a dafa war a def lu leen neex déedéet xale bi du def lu leen neex day def li la li ko war parce que moo gën ci moom moo gën ci ñëpp. Mhm. donc su fekkee nañ ko tegal règle bu mel noonu nga xam ne que ñun suñu bopp dañ ko war appliquer day effectivement day wàññi tension bi nekk relation bi di nekk suñu diggante ak xale bi mais su fekkee ne que dañ ko bëgg a euh, euh, disons wan ni que ñoo ko ëpp doole ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo nekk dafay obligé maanaam di ko fitnaal foofu tant ñu ngi koy fitnaal mën na def li ñu bëgg mais bu wéetee def leneen lu dul loolu. donc yar mooy ñu fexe dugal ci moom li nga xam ni que dafay ci moom même su ma kenn newul nga xam ni que day xam ni que lii moo gën ci moom moo gën ci même su fekkee ni que kenn xoolu ko mu mu mu jëfee ko noonu mu tàmm ko jëfee noonu. loolu la euh, objectif wu yar foofu la foofu la war a mujjee ah, maanaam nit ki am li ñuy wax responsabilité mooy nga xam après jëf mais su fekkee ne xamuloo mënuloo am responsabilité ah donc loolu moo tax euh, éducation bi dafa war a permettre ñu am ay xale yu nekk mag yu responsable ëllëg nga xam ne suñ leen waxee ni que lii baaxul ñu ko mën ko moytu suñ leen lii moo gën wala lii la nga war a def ñu xam ko et que jëfee ko donc mais su fekkee ne que xamuñu su fekkee ne que aussi dañuy xool ni que dañuy ku nekk lu la neex ngay def Euh, effectivement boobu bi ñuy wax désir bi envie yi mooy mooy primé boobu dañu mel ni bàyyi ma mhm. donc euh, boobu dootuñu nekkati donc c'est professeur Lamine Fall <laughs> mhm. euh, question bu mujj bu Ablaye wootee Pikine mooy ba tey ci dans le même sillage que euh, euh, Thiam mooy xale bu intelligent xale bu yeewu bëgg di waxtaan ak nit ñi boo xam ne daal lu bari da koy intéressé naka la ñu mën a def pour préserver intelligence boobu noonu de fait que mu wéy ci moom du ko ñàkk loolu la Ablaye di laajte. waaw euh, dafay rejoindre question bi ñu wax léegi rek entre euh, intelligence ak affectivité. Mhm. c'est-à-dire xale bi mën na am intelligence. mais du ko wane su fekkee en fait intelligence du ko jëriñ su fekkee ni ko dalul maanaam dafa mel ni comme nga euh, am ay moyens yu bëre ba pare moom loo ko utiliser. parce que nekkuloo ci condition yoo ko mën a utiliser normalement maanaam ñoo am ay ressources yu bëre fii Sénégal Afrique ba pare bu ñu jëriñ dara parce que amuñu moyens yu ñu ko utiliser. nekkuñu ci condition yu yu confortable pour utiliser que normalement donc xale bi am intelligence dafa am dafa am matière dafa am dafa am ñu wax matière première bu bëri bu mu war a développer léegi fekk pour mu développer ko il faut mu dal il faut maanaam ñu fexe ba mu nekk dans les meilleures conditions meilleures conditions nag bu matériel meilleures conditions affectives c'est-à-dire il faut que xale bi mu jox ko wéeruwaay maanaam wéeruwaay bi mooy mu xam ni que am na fu mu war a yem loolu yenn saa yi frustrant c'est-à-dire day naqari ci ci ci ci ci ci euh, ci jam li fi li jam mais xale bi suñ ko nee yemal fii fekk na bëggoon na def leneen suñu toogee ak diir dina gis ni que loolu moo gën ci moom donc euh, te foofu nag lay gën a am confiance ci adulte parce que dina xam ni ah kii kat njëriñ sa bëgg mais su fekkee ne effectivement dañ koy bàyyi muy def lu ko neex kenn euh, kenn darewu ko dara loolu daf koy fitnaal dafa yokk fitna parce que li muy ragal mooy def loo xam ni que jéye yenn sax dina def ay jéye gis ci ay gàllankoor ba pare dina ni ne lu tax kenn terewuma li lu tax kenn teewuma donc moo tax euh, euh, euh, xale bi nga xam dafa am intelligence ñu waxtaan ak moom di ko xamal parce que kooku mën na yokk xam-xamam mën na ko jëriñoo suñ ko seetaanee wala ñu ragal sax am na yoo xam ne xale bi day xarañ sax ñu ragal ñu tiit naan waaw kii donc defe naa ne euh, au contraire dañ ko def dafa war a nekk euh, du positif loo xam ne dañ koy encouragé mais du du raison pour que ñu def ko comme mag léeg xale la ba tey il faut ñu ñu koy ñu koy xam lu ñu xam lépp léegi léeg fekk ni xel di ñëw na il faut ñu xamal ko il faut ñu gindi ko il faut ñu dalal xelam il faut ñu yemale ko a yem sans excès mhm. donc euh, loolu mooy tax mu mën a développer intelligence am ba pare mu njëriñ ko jëf def sam Mm-hmm. waa kay professeur Lamine Fall dañu jël pause une minute bàyyi waa service commercial jàllale seen page publicitaire ñu ubbiwaat antenne bi wéy ci waxtaan bi kon ñu bàyyi waa service commercial jàllale seen publicité. festival da raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur kon nag nu koy jaajëfal bu baax a baax Val d'Afrique ak ordre des médecins du Sénégal 33 825 18 30 mooy numéro bi nga xam ne moom la auditeurs yi mën a composé bu ñu bëggee bokk ci waxtaan bi euh, joxe seen contribution boo xam ne dafa laale ak suñu thème tey wala posé question boo xam ne dañ koy def jëmale ci professeur Lamine Fall ñu jël euh, auditeur bi asalaamaaleykum. maa ngi lay ziar sëñ bi. ñu mhm, noo tudd wala fooy woote Amar Mbengue. waaw Tëngéej. kontaan émission bi. Mhm, jërëjëf. vraiment mooy léegi man xaw ma la daal. Mhm. mais man dama yaakaar ñàkk a am na waaw parce que boo xoolee yow ni nga mel a booy léegi ni ñu mel ak yow ni lay yaree ni ni ñu la tegee ci yoon. Mhm. ak léegi ni mu gisee xale yi man des fois damay sax jooy damay sax jom parce lépp. ñàkk base de éducation kese kese kese kese moo waral lool. ñu mhm. bëgg képp ki parent na nga jël say responsabilité say doom yàlla dala ko dénk pour nga sàmmale toppatoo leen su ñun tey jii suñu bàyyi bi ñu bàyyi woon noonu tey ñun li ñu am duñ ko am. Mhm. waaw kon boog foog nga jël say responsabilité say doom xool ci lu ñuy nekk lan la xool ci lu ñuy dugg lan la xool lu ñu def lan la. mais am na ñoo xamante ne du ñu contrôlé dara dara dara dara dara seen doom daal loolu laa amoon ci lu ci waxtaan bi yéen a lekk ñu wéy ci waxtaan bi ak professeur euh, Lamine Fall ndax euh, professeur bëggoon naa xam Euh, lan mooy sa gis-gis ci euh, méthode yi nga xam ne parent yi moom la ñuy utiliser bu ñu nekkee en face de yenn xale yi nga xam ne dañuy jël loo xam ne moomuñu ko dañuy fen wala di agressif di sànni di xaañ wala sax di dóor ñi nga xam ne ñoom ñoo leen ëpp doole la plupart du temps lu ñuy gis mooy parent yi dañuy gëdd xale yi wala di la menacer boo defetee lii dinaa la def lii wala sax yegg ba ci dóor est-ce que tey jii loolu c'est la bon métode loolu dina tax bi changer comportement Euh, waaw question bu am solo maanaam maa ngi wax sànq ba tey ni que réaction parent bi réaction adulte yi dafa am solo hmm? insisté na également ci cohérence su réaction yi maanaam euh, euh, xale bi day xool ñu ko wër ñëpp ci xool nan la ñuy dóor yi yuux yi yëpp effectivement ay méthodes yu ñu xam utiliser la sax traditionnellement hmm? parce que traditionnellement moom li nga xam ne mooy faj mooy mooy lu métti ko hmm? xool bu baax pikiir jeeg Euh, lakk yeeg kenn xamul sax suñu demee ci histoire u faj ñoom gis ni que euh, méthodes yu njëkk yëpp méthodes yu ci la woon donc yar itam mën nañ jàpp sax ci faj faj la bokk maanaam euh, xale bu commencé dëng yenn saa yi mën nañ jàpp ni que dafa dafa feebar mm-hmm. donc pour balaa may dugaat ci ci ci ci ci réponse yooyu réponse éducative yooyu peut-être ma préciser waat yenn élément ci ci jël yeeg loolu moom moo wax mhm. parce que euh, xale yi effectivement mën nañ ko def yoon mën nañ ko def rarement mën nañ ko def euh, fréquemment loolu dafay nekk loo xam ni également dafay jouer ci sens bi ñu mën a am maanaam xale bi nga xam ni que c'est la première fois muy def dara yenn saa yi il faut pas que ñu considérer ko comme ce que ni que daf ko tàmm def. maanaam il faut ñu xam lu tax mu demee nii tey donc loolu dafa am solo surtout la première fois maanaam mais ñu gis xale boo xam ne dafa jël benn affaire rek ñu ni ko sàcceeb fekk na xëy dafa xiifoon amul lu mu lekk mu gis lu mu lekk mu lekk ko donc euh, yooyu yemul ak yi nga xam ni dafa jël pour jël hmm. donc ce qui fait il faut vraiment ñu ñu ñu xool aussi xale bi li mu def dafa jéggi dayoo wala bokk dafa nekk loo xam ni que sax euh, dafa mën nañ ko comprendre maanaam euh, xale bi nga xam ni dafa dafa am euh, ay ay not yu yu catastrophique mu ñëw di xaar ñu duma ko duma yu ñu toroxal ko mu mu tricher ci mu fen am na not bu wax la bu nëbb ay notam effectivement pour bañ mu rusloo ko parce que dafa tiit dafa ragal mën nañ comprendre mais mhm. nga xam ni dafay fen kese pour le plaisir nga xam ni dafay jaxase pour am ay avantages effectivement bokkul ak ki nga xam ni dafa nekk situation boo xam ni dafa war a réagir pour défendre pour génn ci hmm, parce que dafa dafa nekk en danger en fait dafa dafa am vécu de danger même su fekkee danger bi c'est pas réel en fait même su fekkee ni wu ragal du loo xam ni que dafa dafa fës dafa dafa nekk loo xam ne mën nañu ko natt moom noonu la ko dundee moo tax yenn saa yi balaa ñuy ñuy ñuy ñuy dugg ci ay punition sax il faut ñu essayer xool il faut ñu waxtaan ak xale bi pour xool li mu def li tax mu def ko essayer nag lu bëre pour xool ndax lii jaar na yoon wala jaarul yoon essayer bañ a en tant que adulte en tant que parent euh, ñu bañ a ñu bañ a déborder cest à ñu bañ a déborder d'émotion c'est-à-dire ñu mën a bañ a def mu ñu dépassé ah surtout su fekkee ni que loo xam ni que c'est pas amul conséquence yu dramatique donc c'est extrêmement important kon suñu réaction ñun maîtrise, euh, euh, disons, euh, émotionnelle, une réaction fermeté ak cohérence damay important pour que ñu mën a jox xale bi réponse bi nga xam ne moo koy dimbali ëllëg li mu def bu bañ ko répété waat parce que effectivement su fekkee ne day répété wu souvent muy jël di kii foofu effectivement dañ naan problème am na mm-hmm. hmm? foofu nécessairement il faut ñu disons forcer les limites c'est-à-dire dootul il faut ñu permettre mu am mu am euh, tegbe laal loi mu xam ni que lii su ko defee rek euh, disons faute yi faute yi xale bi mën def ci éducation parce que day mën transgressé comme prison ni mu nekkee ni mu nekkee rek tey dañuy dañuy def réparation c'est-à-dire que euh, xale bi tologul foo xam ni que vraiment dañ ko war a xañ xañ xañ mu mu dund maanaam dañu ko war a exclure déedéet dañu war toujours maintenir dañu war a toujours fexe ba ba mu am chance su def li gën li mu def maanaam xale bi jël na euh, waxul dëgg walla yàq na ñu wan ko ni que mën na def mën na wax dëgg wan ko ni ko mën na bañ a jël lu moomul wan ko ni ko mën na bañ a yàq maanaam suñ ko joxee chance boobu après dimbale ko ci mën na bañ a euh, euh, wéy ci ci yoon bu dënk foofu mais su fekkee ne que ci saa si dañ ko fitnaal xoxotal ko yenn saa sax li ñu ci mooy day fàq yenn saa sax mën na ci yokk leneen lu ci bokkul woon mhm. li ne que di duma yenn duma yi wala ñu dem ba dërkiis donc yuuxu yi ak dóor yi yenn saa yi nga xale yoo xam dafa dafay wax dara wala mu def dara dafa euh, sax ci ci ci xale yi jël maanaam am na xale yoo xam ne duñ jël ci biti seen biir kër la ñuy jëlee seen yëfu diw la ñuy jël duñu jël ji jël jëf yëfu keneen yenn saa yi seen yëfu yaay la ci jël wala seen yëfu baay ndaxte ñu yëf bi boobu ba ñuy ba ci jël loolu baay ji la soxla la ñu bëgg lañu bëgg jël li bokk ci moom pour mu jege leen ah, parce que xale yooyu yenn saa dañuy dund loo xam ne ni comme dañ leen dañ leen dañ leen bàyyi daf mel ni comme kenn yëguñu yëguñu daal am nañu intérêt ci ñoom am nañu attention mhm. ci ñoom am nañu attention ci ñoom yenn saa yi dinañ dinañ donc dinañ jalgati juste pour ku ñu am attention ci ñoom donc foofu su fekkee da nga war a yuux wala nga koy dóor effectivement da ngay def attention ci moom su fekkee ne que nag yoon boobu rek la am pour yow ngay am attention ci moom mais loolu kon continuer di def moo tax dóor yi ak yuux yi yenn saa yi du meilleure solution même suñ ko doon def wala ci nga xam daf ko tàmm def war na xolaat est-ce que am na njëriñ wala amul njëriñ te généralement du am benn njëriñ ndaxte ki koy def souvent dafa dafa débordé cest xamatul lu mu war a def ki koy def souvent su koy def effectivement mu ngi def li nga xam ne xale bi loolu doon xaar ndax xale bi xamoon na ni ko fii lay mujjee maanaam demee ni comme xale bi moo ko commandé donc ce qui fekk boobu contrôle tul dara moom la ñuy contrôle donc c'est extrêmement important ñu ko ñuy analyser relation bi am entre xale bi ak ci moment yooyu est-ce que dafa puus duma dañ naan dafa dër kiis rek maa ngi gis benn euh, su piguré xale bi day fecc Euh, xale bi su gisee ne yow da ko bëgg jaay da nga ko bëgg a mën na la wan ni que li nga ko def defu ko euh, jëriñu wàññiwu ko dara. Mhm. boobu daf lay pousse yow nga def lu ëpp loolu sooy def lu ëpp nag teg musiba génn ci ah donc moo tax il faut ñu éviter dugg ci piège boobu nga xam ne que xale bi mooy mooy décider xale bi mooy mooy relation bi parce que mooy anticiper suñuy réaction ah, donc loolu mooy loolu mooy aussi piège di dóor di yuuxu wala vraiment di wut bi lu ko métti. soo jàppee ne kay yar ko mooy fexe def li gën ci moom bañ nekk lu koy fitnaal bañ nekk loo xam ne daf koy daf koy euh, mettital généralement ci ngay ëpp chance nga am li nga bëgg plutôt nga koy mettital wala nga koy fitnaal ndaxte euh, xale bi la bii def li nga bëgg du xale bi la ragal déedéet xale bi la ragal du def li nga bañ sa kanam mais dina ko def feneen xale bi nga xam ne que nag da nga da nga ko da nga jox éducation bi ko jëriñ nga nekk faak nga bañ fa nekk dina def li nga xam ne mooy li gën donc moo tax fit fitnaal yi amul njëriñ métital yi amul njëriñ wante nga wan ko ni que li mu def mën na def lu ko gën loolu lu am njëriñ la ci ci punition wala ci ci sanction mhm, mais loolu est-ce que lu yomb la professeur wala dafay laaj processus bu yàgg non non mooy li may wax rek maanaam éducation moo yombul éducation yombul mais tey par exemple yow xale bi nga xam ni danga ko naan par exemple copier encore euh, benn benn phrase euh, mettons euh, cinq fois wala dix fois kooku punition la boo xam ni que du du méttital xale bi ndaxte laajuloo ko loo xam ni mënu ko da koy laaj loo xam ni sax daf koy jëriñ ndax suy copier effectivement dina dina jàng bind dina gën a bind mais également mën nga corriger fautes yi et cetera xale bi nga xam ni sax danga nga ko naan demal toog dana le point pendant par exemple deux minutes wala trois minutes le temps parce que dafa dëj di jaxase le temps mu toog dans le coin pendant une minute ou deux minutes nga ne ko alors est que fi mu nekk dal nga kooku parce que dañ ko tëpp parce mais soo ko fàttee foofu ay ay ay ay heure ay mujj métti mu ànd rek li xale bi àttan te il faut que mu bañ a nekk loo xam ne dañ ko def pour méttital ko ndax xale bi li mu def Euh, defu ko pour métital nit ñi forcément même su ko defoon ci métital nit ñi waruñu ko fekk ci ci yoon boobu dañ ko war a ko mën na def loo xam ne du métital kenn te moom itam kenn du ko métital maanaam euh, boobu dañuy respecté ñun suñu bopp dañuy en tant que dañuy respecté loi bi ni ko kenn amul droit def du mal donc personne n'a le droit de faire du mal mais aussi personne n'a le droit de faire du mal maanaam waruñu métital nit waruñu métital suñu bopp kon fi ngay naan warul xale bi warul méttital kenn warul def lu naqadi kenn war loo ko def aussi loo xam daf koy dafay métti ci moom en fait euh, au vrai sens loo xam ne ko du ko jëriñ donc parce que ay duma jëriñu lu jëriñ xale bi dara mais yenn saa yi ñiy duma dañuy duma parce que gëm ni ko xëy na mooy yar wala yenn saa yi dañuy duma pour xale bi yëg lu metti te euh, loolu amul njëriñ loolu amul njëriñ ñi koy def yëpp certainement gis nañ ko gis nañ gis ne suñu fa nekkee xale bi xëy na dina yem mais suñu fa nekkul suñu demee feneen donc moo tax c'est extrêmement important que parents mën a def abstention yenn saa yi réaction yu yu spon euh, euh, euh, dévié maanaam bu bañ a topp xolam ah il faut réfléchir il fexe dalal salam dalal xale bi dafee fexe xalaat loo Mm-hmm. Eh, su fekkee ne xale bi nga xam ne xelam neexul comme ni wax sànq rek day nekk leneen lu gën a jafe hmm? day nekk leneen lu gën donc su fekkee ko yombul suy demoon ba métti métti nga demandé aide am na ay professionnels maanaam am euh, na am na ay éducateurs am na ay psychologues nga xam ne mën nañ la dimbale pour nga gën a comprendre mën nañu dimbale aussi nga mën a réagir pour dimbale fa doom. mais dem ba di yàq di gaañ di def comme xale bi euh, vraiment du du méthode boo xam ne dina dimbale. donc defe naa ni tey euh, droit de l' enfant yi insiste nañ ci loolu parce que gis nañu ko loolu de répondre aux besoins de l' enfant soxlawul loolu xale su bëggee loolu soxlawul en gros. Mhm. Euh, professeur euh, nee nga méthode yi ñuy utiliser méthode yu xaw a métti du baax et souvent xam nañ ne parent bu ko def xëy na dafa fekk ne amatul solution. moom it dafa yëg malaise parce que affaire yi dafay ñuru lu ko ëpp doole te ci période boobu la ñuy ñëw ci yéen souvent euh, éducateur spécialisé yeeg pédopsychiatrie pour xam nan la ñu mën a def yéen naka ngeen leen di aider d'autant plus que xëy na souffrance bi ñaar la parent bi gis ne doomam comportement bi mu am neexu ko mu ngi souffrir intérieurement xale bi nga xam ne tam gis na ne moom mënul satisfaire ay parents parce que tout le temps mu ngi am ay reproches ñu ngi koy dóor moom it neexul mu am benn rupture ci diggante parent bi ak doom ji yenn naka ngeen di def pour concilier leen mais aussi pour euh, jéem a éradiquer mal bi fi nekk muy kiy jël ak wala kiy ki dul wax dëgg wala kiy agressé. comme ni ma ko waxee sànq rek première euh, euh, première action bi mooy ku nekk ñu fexe bi. nekkaat parent au vrai sens du terme éducateur notamment a c'est-à-dire que mu fexe ñu fexe mu ba mu gën a mën a gis besoin xale yi xam nga ci éducation loolu mooy jafe maanaam euh, nit ki nga xam ne que nekkuloo ci xelam nekkuloo ci biiram nga xam lan la soxla fi bu nekk li xam ne moo koy jëriñ loolu moo tax éducation nekk lu jafe même éducateurs yi seen bopp spécialisé sax laay wax yombul ci ñoom même dóor yi ngay wax yenn saa yi du ñàkk sax moo éducateur spécialisé bu duma parce que dafa déborder parce que nit nit rek la yenn saa yi su su ko defee dina xam ne que li mu def du noonu mais su koy def du ko tey li nga def te doo ko tey nag du responsabilité. nga xam mhm. doo da nga koy def te doo xalaat du responsabilité. donc te loolu xale bi daf koy gis day xam ne que tey eh, adulte bi eh, jalgati na donc ce qui fekk que ñun suñu dajee xale yenn saa yi dañuy dañuy insister loolu xale bi da lay wan ni que eh, ki nga ko seqal dafay jalgati li muy def du yoon dafa ko leer effectivement foofu dañu nekk dañu nekk dañu dañuy déplacer problème bi donc moo tax dañuy insister pour revaloriser la fonction parentale revaloriser les les cest a dire un bu nekk am na ay compétences am na ay at mais du ñàkk moom ay faiblesse ay limites donc yooyu la ñuy essayer aussi parce que lii soo ko xamee mën nga ko man mën nga ko améliorer mais su fekkee ne nga jàpp ni war a xal bi yar yar nga yar ay xale wala xale boo yar mu jaar yoon euh, non euh, foofu da ngay euh, nga def erreur maanaam ku ci nekk war nga jàpp ni que éducation yombul chance la sax yenn saay yi wante effort bi nga ci war a def soo ko deful doo am chance donc il faut nga def ci effort xale boo xam ne que kenn toppatoo ko xam ne ko mënul mënul jaar yoon maanaam xale yi soo leen bàyyiwul ak xel parce que dañ ko soxla c'est-à-dire xel dañuy bàyyi ci xale bi xale bi daf ko soxla du loo xam ne que dañ ko koy may déedéet moo ko moom maanaam xale bi fu nga def attention ci moom su gisee ni que yenn saa def lu attention ci moom dañu def attention d'une façon ou d'une autre donc ce qui fait su xale bi ñëwee ñun suñu suñu suñu service bi déjà day wane ni au moins am na reconnaissance su euh, disons blocage problème. Mhm. donc yenn saa yi foofu la ñuy jëkk taxaw ak parent bi ak xale bi pour déjà euh, xale bi aussi mën na reconnaître li ñu koy reproché. mën a reconnaître ni que du du yoon mën a peut-être même regretter foofu damay taxaw aussi parce que xale bi nga xam ni que dafay jalgati di jël di yàq di tooñ euh, di di di di di di wax dëgg ba pare du ci am benn remords maanaam du ci dara du ko ci du ko ci du ci yëg dara. du rëccu. bo waaw du rëccu. du rëccu du ci bettital yoonam newu ci li ko neex rek la xam kooku yenn saa kooku vraiment euh, dafa nekk lu inquiétant cest foofu. day nekk yenn saa yi ñuy wax ñun de ay ay trouble yoo xam ne que day day nekk ci personnalité c'est-à-dire que mooy le yenn saa yi les futurs délinquants yi nga xam ne que yenn saa dañuy dañuy def musiba c'est-à-dire yooyu su su fekkee dafa teel a feeñ ci xale bi ba pare teel a mel noonu yenn saa yi ëllëgam euh, maanaam euh, suñ ci teelu jóg euh, dina nekk lu doy waar ah donc yenn saa yi il faut vraiment ñu def ci kéem ay kéem lay kattan yenn saa am bi rek rek boo ko mën gérer il faut nécessairement ay aide Euh, professionnelle euh, psychologique sociale éducative judiciaire yenn saa sax pour que ñu mën a réduire les dégâts parce que euh, effectivement dafa am aussi xale yoo xam ni que noonu lañ leen bindee donc suñ leen gaawul dimbale mais dañuy dañuy dañuy sànq sànq seen seen société sa ce qui fait que xale yooyu dóor leen njëriñ dara yooxul leen njëriñ dara parce que faalewuñ en fait yëguñu sax li li ñi di yëg ñoom li ñu bëgg rek la ñuy la toppatoo mais loolu du ñëw du ñëw comme ça de façon naturelle souvent su ñëwee comme ni ko waxee sànq da fekk mu am ay prédisposition biologique ba pare environnement bi favoriser expression bi favoriser c'est-à-dire bàyyi ko mu mu nekk mais suñ ko orienté effectivement mën nañu euh, fexe ba du nekk mais loolu benn parent warul yaakaar ni que war na ci mën a euh, réussir seul et à tout prix il faut nécessairement que mu am ni am na muy day sonn pour dimbale mën nekk ci famille mën na nekk ci université mën na nekk ci professionnels yi mais il faut vraiment que mu mën a xàmmee xam ni que fi mu nekk xale bi relation bi jàllatul il faut mu am médiateur il faut mu kenn ku ci dugg pour que au moins mën a amaat communication au moins mën a amaat dialogue au moins mën a amaat benn processus de reconstruction parce que destruction am na xale yoo xam ni que réaction yi ñu am ak ñoom daf leen di yàq daf leen di détruire day détruire lépp nekkoon ci ñoom comme espoir comme espoir que mën nañu nekkaat ku baax mën nañu defaat lu baax. Euh, moo tax suñu commencé jalgati ñu insister ci li ñu li ñu li li baax li mën a def mooy gën ñuy taxaw di insister ci di bon li ñuy def. kon da nekk position éducative boo xam ne que c'est pas facile à tenir. Mm-hmm. mais il faut que parents bi essayer wan xale bi ni que mën na nekk mais ma ma mu bañ a aussi gumba Euh, bañ a bañ def comme fekkoon ni que dara amul c'est-à-dire su fekkee ni que changé wul il faut mu wuti ndimbal ah il faut que mu pexe ba yeneen yeneen euh, yoo xam ni que dina mhm. euh, kon nag de professeur dañuy ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 pour ñu bëgg a intervenir euh, ci côté boobu li nga mujj wax ni parent bi bu demee ba mbir mi ëpp loxo dafay soxla médiateur dem par exemple ci ñi nga xam ne ñooy éducateur spécialisé wala pédopsychiatre mais ci suñu société nu mu nekkee nii est-ce que du du metti ci yenn parents yi nga am difficulté ci sa éducation doom nga ne da ngay dem wuti un professionnel xëy na ñu bëri dañuy ragal ne euh, bu ñu ko defee rek dañu nax kii de doom ji da ko ëpp doole est-ce que yéen euh, en service de pédopsychiatrie da ngeen di faral di gis cas yu mel noonu cas yoo xam ne parents yi dañuy ñëw di leen solicité pour xale boo xam ne dafa dem ba sàcc dëkk ci moom walla agressif ba en tout cas da koy def du ci am remords comme ni nga ko waxee sànq walla cetera et cetera est-ce que. commencé na bëri am wala doo leen koy gis di tudd non dafa mos a am en fait dafa mos a am loolu moom dafa mos a am c'est vrai que yokk na mais su yokkee tey est-ce que problème yi jafe-jafe xale yi ñoo yokk wala est-ce que yi ñoo gën a commencé ñëw boobu dañuy jafe ñu xam exactement lan mooy lan mooy réponse mais ce mhm. qui est clair mooy de tout temps parents yi dañuy ñëw pour demander euh, ñu jàppale leen ci euh, xale bi parce que yenn saa ñuy ñëw ci ñun du parce que dañ dañ dañ teg problème problème éducatif dañu def problème bi problème mental xam nga yenn say xale day jalgati di jël di def yenn affaire dañ naan kii day tux day tux dafa am lu muy jël yenn saa yi tamit euh, euh, conduite yi foofu lay day day daf ci associé yu mel yenn saa daf ci ànd moo tax yenn saa euh, ku def yenn affaire yi rek wala ñu ne dafa dafa dafay dafay jël ay affaire wala dafay mandi wala dafay tux dafay am ni muy àndal ñu baaxul malheureusement conduite yu mel nii itam daf lay exclure maanaam yenn saa li tax euh, tey peut-être aussi ñuy gën a gis xale yu mel noonu c'est école bi day signalé. Mhm. c'est-à-dire xale bi su demee école euh, di am comportement mel ni mais du jàll duñ ko nangu ci école dañ koy dàq. ce qui fekk que yenn saa yi ñu koy dàq dinañu essayer wut ay solution yenn saa yi école bi mooy pousse parent bi wala njàngam école bi mooy pousse parent bi mu indi doomam mais ci la ñu gis ni que am na yeneen affaire yu ci nekk. donc yenn saa yi aussi justice ci boppam mooy mooy mooy indi xale bi mooy mooy mooy mooy ak éducation spécialisée yi ñooy pousse ba ñu mën a xool ni que kii action éducative rek doyul yenn saa yi il faut ñu def ay psychothérapie yenn saa yi il faut ñu def yeneen technique euh, yoo xam ni que euh, euh, mooy tax xale bi transformé wu c'est-à-dire il faut ñu toppatoo xale bi ci ni muy xalaatee ni muy yëgee il faut ñu fekk ci ko foofu yenn saa day soxla ay garab yenn saa yi day soxla ñu def ay entretien individuel dañuy soxla ñu def ay entretien familiaux en fait day bëri façon façon yoo xam ni que euh, am na ay dispositifs yu bëri yoo xam ni que mën nañu ko appliquer pour euh, réduire euh, donc les les risques pour fexe xale bi delluwaat ci ci yoon yenn saa yi heureusement souvent d'ailleurs dañ ci réussir souvent mais encore service yi comme pédopsychiatrie bi ma nekk bëriwul Sénégal Euh, donc ce qui fait que j'imagine que la majorité des parents amuñu fu ñu ko fu ñu ko jooyee. Mm-hmm. amuñu fu ñu ko leen dimbale. donc euh, euh parce que euh, yenn saa yi réponse yi c'est purement éducatif alors que yenn xale yi dañoo soxla ñu traité leen dutul datul leen éducation rek c'est-à-dire dañoo perturber de façon très profonde ci seen personnalité donc yenn saa yi il faut ñu gaawantu dimbale leen ndaxte ay xale lañ ñu ngi màgg pareeguñu donc euh, seen état fixé gul ndax ndaxte xale bi tant que demul ba ba nekk mag carrément. lu bëri ci moom mën nañ ko changer loolu mooy aussi sunu sunu action préventive euh, en secondaire c'est-à-dire que chance bi bi ñu am ñun pour réussir yenn yi ak xale yi pas ak mag yi ak xale yi ak diggu dóomu yi mooy ni que seen màggaay jeexagul ah comme ni ma ko waxee sànq rek bant bu tooy mën nañ ko jubanti ba ñuy ba ñuy am vingt ans yenn saa vingt cinq ans yu bëri mën nañ ko jubanti mais su fekkee ni que effectivement dañu dem ba nekk mag euh, carrément euh, yenn saa yi malheureusement ba fu ñu toll suñu donc yooyu adultes yi ñoo leen di jël en charge leen say juge bi wala wala ñu ngi ci ñu ngi ci yenn ne leen say dañuy dañuy jaxasoo complètement ban peut nekk ci mbedd bi parce que dugg nañ ci lu nekk euh, gën a yàqu donc moo tax euh, c'est extrêmement important que ñu jëpp teel ci jóg parce que lu ñu ci gën a teel a jóg muy gën a yomb mais du lu du lu du lu du lu parent di di hésiter pour ñëw consulter au contraire euh, gën a bëre mais façon wute mm-hmm. très souvent du nekk du comportement bi rek wala yeneen mën na nekk lëcc yi mën na nekk problème jàng problème euh, jël ay ay substance mën na nekk mën na nekk yu bëri jaxasoo yoo xam ne dañuy ànd ak jalgati yi moo tax euh, aussi euh, du lu du lu raar suñu consultation au contraire dafa dafa xaw a sax fréquent te âge yëpp la nag amul amul amul amul âge même maternel sax am na ci xale yoo xam ne dès maternel dañuy commencé di wane yenn jafe-jafe yi te foofu déjà il faut ñu jël ko en Mhm. Euh, ñu ñëw professeur ci euh, difficulté de concentration yenn élèves yi euh, ci wàllu école classe parce que boobu ba tey waxuñu ci est-ce que souvent da ngeen di gis cas yooyu xale yi nga xam ne vraiment ñi leen di jàngal sax dañu am impression que ni amuñu benn envie sax des ci classe bi parce que duñu participer dafa mel ni liñ leen di wax du dugg loolu cas bu naka lañ ko war a jàngatee. waaw loolu mooy problème attention na wax rek day fréquent yenn saa yi ci mu nekk siñ moo xam ne yenn saa mooy jiitu li ñuy wax mais dafa bëre façon maanaam xam ni que dañuy am trouble l'attention centré classe bi duñu dégg duñ leen wax duñ ko jàpp parce que yenn mu ngi ci leneen yooyu mën nekk maanaam ndax yoo wala ci suñu nekk donc di xalaat yooyu rek mën na tax seen xel du fi nekk am xam ne xale yoo xam ne dañ ko bindoo maanaam dañ ko bindoo ci seen euh, biiru yaay sax la ñuy la seen yaay di yëg ni que mais kii dafa lëj ah dal effectivement boobu mooy wane ni que manque de contrôle euh, musculaire boobu euh, mooy feeñ aussi ci attention ci xel mi maanaam xale bu concentré wu mooy xale boo xam day day contrôler attention maanaam donc concentré wu maanaam bàyyi xelam ci dara ci lenn rek bañ bañ ko tasaare pour loolu dafa laaj effort boo xam ne que effort de contrôle comme ni muy téyee sawam wala mu téyee ay cabinet am au fur à mesure noonu la xale bi di mën a aussi attention mu nekk ci lenn bañ tasaaroo donc mais euh, loolu ah compétence boobu balaa muy mature maanaam suy duggee six sept ans ba huit ans moo tax école primaire commencé six ans généralement am foofu la ñuy laaj xale mu toog concentré wu pendant deux heures avant récréation parce que mën na ko donc xale yi nga xam ne mënul loolu nag yenn saa yi day wane ni que dafa yéex ci li mu li mu am ah, li mu li mu pour mën am compétence boobu pour mën a def loolu daf ci yéex wala yenn saa yi ci dafa perturbé loolu li ko mën a indi nag kon bëri na bëri na il faut ñu natt ko xool ci lan la tegu xool lan moo koy yokk ah, xool lan mooy tax euh, aussi mu nar nekk loo xam ne mën na jokk leneen donc euh, liggéey bu yaatu la donc euh, am na ci ay garab yoo xam ne que sax pour loolu kese la am na garab yoo xam ne que malheureusement bëriwul Sénégal yenn saa yi parce que amul sur le marché euh, mais am na ci garab yoo xam ne que pour attention rek kese su su su fekkee ne problème attention la dafay jëriñ léegi su fekkee ne que du loolu rek euh, mën na jëriñ tuuti mais du doy donc mais su fekkee ni attention kese la soo ko joxee xale bi ci saa si benn fan maître bi ni la gis naa gis naa lu changé yow sa bopp nga gis ñu changé xale bi boppam dina dégg moo gën avant moo gën démb donc euh, su jëriñul ñu xam ni que du du loolu kese wala du loolu jiitu donc c'est extrêmement important donc euh, ñu xam ni que euh, yëpp yu lépp nga xam dafa nekk gàllankoor ci màggaayu xale que mu nekk ci xelam que mu nekk ci jàngam que mu nekk ci diggante nit ñi am na ay jumtukaay yu ñu am ñun ci pédopsychiatrie ak ñu koy liggéeyandoo pour jàppale ci parents yi pour jàppale ci xale yi pour que seen ëllëg gën vraiment ñu mën ci génn mais euh, du gaaw waa parce que malheureusement Sénégal li yi bëgg nag du Sénégal rek sax mooy affaire yi gaaw mm-hmm. bëgg ñëw benn yoon ñaar yoon rek affaire yi réglé déedéet gaawul il faut que natt nattaat jéem jéemaat parce que il faut ñuy natt chaque jour natt chaque mo moment lan moo avancé ak lan moo baissé ak lan moo changé ak ay ajustement la Euh, au fur et à mesure donc mën na jël ay mois mën na jël ay semaines mën na jël ay années mais parents yi wala xale yi ñooy xool ba fi ñu ci bëgg a yem yenn saa yi su fekkee ni ko dal na Sénégal su leen neexee ñu arrêté mais généralement donc euh, dina am ay temps bu muy jël boo xam ni que mën na gudd bu ñu xam ni vraiment mën na gudd mën na gàtt mais du gaaw gaaw mënul gaaw c'est pas possible parce que évaluation yëpp suñ ko bëggee daf rek gaawul waxuma la ak intervention yi. Mhm. kon est-ce que loolu professeur mën na nekk motif de génne xale bi ci wàllu école gis xale boo xam ne du am concentration que jëm nañu lu ne mais daal toujours moom mooy mujj ci classe bi bu ñu def. évaluation normalement non normalement non normalement xale bi dafa suñu jàppee ni que de l'enfant également mooy mu jàng école. Mhm. ak lu mu mënti doon ak lu ko mënti dal ak quel soit ses moyens xale du am loolu war na mën a jàng école. malheureusement suñu système sénégalais c' est vrai que euh, am na yu bëri ñu def ci wàllu boobu maanaam prise en charge handicap yi parce que yenn tay vrai handicap la ah, xale ñu xam yenn tay sans problème attentionnel te nekk vrai handicap ndax day yéex day tardé ci yenn affaire yu bëri donc il faut que ñu yenn say ci classe yi sax ñu xam ñu am ni ñu koy disposer ci classe yi ak ay systèmes ñuy def pour pour réduire conséquence su euh, inattention boobu donc loolu il faut direction école yi nangu ko il faut maître bi nangu ko il faut mu nekk droit pour xale bi il faut mu am ay kayit yu war a médecin bi war mën a def pour wane ni que lii xale bi lii moo ko dal donc war na am droit yooyu taxawagul bu bu leer Sénégal fi mu nekk dañuy bricoler c'est-à-dire directeur yu bëri ak maître yu bëri dañuy nangu mii rek mais binduñ ko fenn amul benn kayit donc euh, contrairement ak yeneen système yoo xam ni que euh, médecin day def évaluation yi ñu suivre ko traité ko mais ci diggante ñu ngi traité xale bi mën a continuer jàngam ba génn ci parce que quand même situation yoo xam ne que généralement suñ ko toppatoo dina évoluer tax na yéen saa ngi gis ay mag yoo xam ne que problème yooyu ne génn nañ ci su ah, mu nekk Sénégal sax comme feneen ah. donc ce qui fait que euh, pour le moment euh, nombre effectivement de de personnes yi nga xam ni que ñoo am loolu moo ëpp suuf di ñu mën a accueillir comme capacité c'est clair ce qui fait que aussi moyens yi parents yi am pour def soins yooyu certainement moo gën a tuuti aussi. Mhm. parce que soins pour le moment c'est pas très euh, disons pour le moment ah. donc ñëpp amuñu les mêmes capacités pour pour aux soins ñu ci bëree sax amuñu sax accès aux soins parce que dañoo sore parce que il y a x raisons donc ce qui fait que c'est sûr que pour le moment. Euh, euh prise en charge bi au niveau national dañu ko sous-évaluer même chiffres yi ñu mën euh, joxe sur le plan de la prévalence dafay tuuti c'est clair loolu du ñàkk suñu xoolee prévalence euh, sur le plan international euh, donc ay ay ay ay problème de santé de santé publique la ah. donc c'est-à-dire que yenn ay millions de xale euh, lay lay concerné donc malheureusement pour le moment ñun amuñu sax moyen accéder disons am accès jox accès à l'ensemble de la population sénégalaise parce que service yi bëriwul yëpp Dakar la nekk. Mm-hmm. encore même Dakar. ñu ngi centre ville yenn saa yi ñu dëkk sax banlieue dañuy am jafe-jafe ak donc loolu vrai problème la. Mm-hmm. pas seulement pour problème mu euh, disons attention bi wala problème comportement yi mais globalement pour euh, développement xale yi parce que développement physique euh, santé physique c'est important mais santé mentale c'est très important parce que mooy nit nit da nite donc mais nga am jëmm am yaram doyul ah xale bi il faut mu am mu jëriñ boppam jëriñ société am te loolu euh, tàggat na tàggat boo xam ni que parents yi ñoo ci jiitu ant ñëpp ci lañ bokk hmm. état ci la bokk projet ci lañ bokk projet ci la bokk imam yeeg oustaz yeeg ñëpp ci bokk ñëpp ci lañ bokk xale bi fii war a jalgati ëllëg mën na dal ci kaw ku ne hmm. donc moo tax tey mënuñu mënuñu def comme si fekkoon ni que du suñu du mm-hmm. xale boo gis ci mbedd bi muy def nag si noonu soo deful nank ëllëg sa kër la jëm la jëm donc moo tax il faut que quand même euh, xam ni que quel que soit les droits yi am droit droit la c'est-à-dire lépp lu fi nekkal maanaam droit de la droit de la femme ak moo ci ñëpp la fi nekkal ki nga xam ne nekkul ci yoon mën nañ ko delloo ci yoon te dañ ko war a delloo ci yoon loolu mooy loolu mooy yoon ah loolu mooy mooy njëriñu sunu société donc sans pour autant bu nekk ay menaces ay forcing ay fafatal cest dañ koy accompagner accompagner nit ki mooy fekk ci ko ci li nga xam ni moo gën ci moom te ku nekk li gën ci boppam la bëgg donc xale yi également am nañu xel yenn saa ak bu ñu xel boo xam ne que xam nañ li nga xam ni que euh, soo ko leen ko defalee moo gën ci ñoom dañ koy dañ koy nangu dañ koy bëgg sax di defaat donc moo su ñeen ci jàppalee rek mën na nekk xale bu nekk su doon sagoom du jalgati day jàng bu baax mhm. mais euh, il ñu jàppale ko donc mhm. suñ ko dégloo suñ ko toppatoo yenn saa mën nañu dimbale pour ñu gën a xam fan lañ koy dimbalee dimbale ko mu nekk uh-huh. yar gi mu nekk ci faj uh-huh. uh, waa kay professeur uh, Lamine Fall waxtu wi dam nañu uh, dama lay jaajëfal ci sa disponibilité bàyyi la nga tàggatoo ak auditeur u Sud auditeur u Allo Docteur waaye tamit gën a njëkk gën leen a fàttali lan moo war a nekk premier réflexe parents yi bu ñu bëggee am éducation jox éducation de base suñu xale yi ba ñu mën a mucc ci yenn écart yi mel ni sàcc fen wala agressif wala ku ko ci am sa kër aussi ban conduite nga war a tenir nan nga war a def boo bëggee ñu jàppale la ngir loolu lépp doon doo xam ne xëy na souvenir lay nekk rek mais du doon luy wëy ba topp xale bi ba ci màggaayam. jërëjëf donc jërëjëf auditeurs yi ñu doon déglu jërëjëf aussi ñi ñu door a commencé déglu jërëjëf euh, soxna euh, Marie. Euh, donc ce qui fait que euh, li ñu war a bi euh, parents yi effectivement mooy nekk xale bi dafa soxla ñu toppatoo ko bu mu bu mu nekkee ndaw bu bu muy dooree jub fexe ci tab li nga xam ne moom la soxla pas bànnee ah, soxla cest li nga xam ni ko loolu moo koy jëriñ ci lekkam nekkinam ci yëg ci yaramam maanaam jege ko pour fexe xelam dal boppam xelam dal aussi ci digganteem ak ki ko yore pour mu mën a dal également ëllëg ak lu mu nekk comme mu intégré mu intégré euh, la loi mu intégré nga xam ni que mooy yoon parce que yoon dafay def li nga xam ni que moo gën ci ñëpp donc su fekkee ne dañ koy négligé su fekkee dañ koy euh, abusé sox xooxataan su fekkee dañ koy seetaan dañ ko dañ ko dañ ko bàyyi dañ ko seetaan defal ñu ko dara su fekkee dañ koy def lu metti effectivement donc fekk ne duñu duñu dab ay li mu soxla su xiifee wala su maree wala su tiitee wala yeneen du am fu mu fu mu wéeru du am fu mu laqatu effectivement xale boobu dafay am am mu def ay ëllëg mu am ay difficulté relationnelle am na difficulté sociale nekk euh, koo xam ne que dafay mettital ni mu dëkkal mhm. koo xam ne bànnee xam jaral ko lu nekk ah, koo xam ne ëllëg mën na rey mën mën na mën na jël yëf lu moomul par tous les moyens mën na euh, def escroquerie di fen di jël pour pour ay ay donc euh, euh, mën na aussi dem jël yoo xam ne dafay tax a sagoom donc ba indi ay ay musique ci ci mhm. donc ce qui fait que c'est très important relation précoce yi dire que diggante yaay ak doom diggante yaay papa ak doom ci ñetti at ci njëkk dafa nekk am solo ci at bu njëkk bi d'abord ci la gën a am solo te ba ci ñetti at yi di jeex dafa nekk lu am solo lool lool lool loolu dina tax xale bi am ndëgërlaay boo xam ne que ñëw ci li li ci topp dina gën a neex a dugal dina gën a neex a euh, teg dina gën a neex a leeral ak moom parce que leer fu dëgër hmm? donc euh, loolu du woon thème bi mais dafa ànd ak thème bi mm-hmm. hmm? dafa ànd ak thème bi bu baax donc ce qui fait que c'est très important que suñ koy yar itam ñu bañ a xalaat ni ko tiital ko fitnaal ko wala di ko métital dina am njëriñ di ko amal benn njëriñ di njëriñ mooy ñu fexe mu xam ni que même si su fekkee ne neexu ko mooy li gën ci moom li nga xam ne tam daf ko neex dañ ko parce que seulement pas seulement parce que que également mooy li gën ci moom te mooy suñu wàll ñu def ko donc c'est kon foofu également euh, parent bi xam ni que dafa am responsabilité lu ko neex rek lay def wax ko xale yenn saa yi fu mu wax ko xale am na xale yoo xam ne dañu foog ne yow lu la am liggéey lu la neexee nga wàcc lu la neex jënd déedéet il faut xale ñu wax xale yi ni ko ñun ay mag du ñu def lu ñu neex. Mhm. dañuy def lu ñu war ah donc important parce que sinon ah, euh, relation bi dafay dafay poussé hmm? lépp lu jëm ci faj également defe naa ni que xale bi duñu xaar ba affaire yi tar amee lu soo amee lu la jaaxal ci sa doom. loo xam ne que yaa ko ji sa sa bopp wala loo xam ne dañ la ko wax wala école bi moo la ko wax wala ci fi muy defee sport wala bi ñoo la ko nettali war nga ci bàyyi xel bu baax nattaat ko xool ko euh, même su fekkee ni que euh, fitnalu la ba nga war ci jóg ci saa si war nga ci bàyyi xel ba euh, su fekkee ni que dañu nga wut ci dimbal mhm. su fekkee ni mënuloo ko réglé dimbal bëri lañu façon tey hôpital hôpital public dans tous les Euh, am na am na ay ay ay services sociaux am na ay mesures euh, li ñuy wax euh, de cas sociaux yoo xam ne que même soo amul dara même soo amul loo fayee hôpital mën nañu mën nañu da defal enquête pour ñu faj la te doo fay wala doo fay lu bëri wala doo fay dara. Mm-hmm. jërëjëf di toppatoo la boole laak ñi la war a faj donc du forcément parce que da ngay am da ngay da doo doo faj da ngay da soo amul doo faju ah maintenant am na malheureusement déficit ci service yi. am na ay euh, service privé te service privé dañoo cher c'est normal mhm. service public bi ñëpp la fi nekkal tey pédopsychiatrie am na Fann am na Thiaroye a hôpital psychiatrique Thiaroye am na hôpital enfant Dieul Niadio donc euh, am ñetti ñetti ñetti structure euh, tey Dakar malheureusement dara amul ci région yi mais yaakaar nañ ni que xëy na ci at yi ci kanam mhm. parce que bëgg nañ développer également formation bi loolu mooy rôle suñu association bi ñu wax sànq sénégalais psychopathologie juvénile formation bi au niveau informel déjà par rapport ak acteurs yi sur le terrain renforcement des capacités mais également plus tard même euh, bon peut-être euh, dès déwén formation pédopsychiatrie Sénégal parce que il mhm. ba tey ba tey jii may wax nii ñi nga xam ne pédopsychiatre lañu yëpp Sénégal dañoo obligé génn Sénégal dem moo tax ñu néew di ko commencé Sénégal yaakaar nañ ni que dañ gën a bëre donc euh, nit ñi gën a mën a am ay ay possibilité faju jërëjëf euh, loolu mhm. euh, jërëjëf professeur Lamine Fall Sud FM mu ngi lay remercier may fàttali auditeurs yi ne professeur Lamine Fall euh, pédopsychiatre la kër xale yi bu Fann nekk président association sénégalaise de psychopathologie infanto-juvénile may jërëm auditeurs yi di leen jox dig daje talaata bi di ñëw ci beneen numéro allo docteur